Música mbokk internet yi ñu ku ci nekk dafay toog sa kër toog sa kër nag jamono ji mooy aar sa bopp ci li nga xam ne mooy feebar bii di coronavirus aar yi nga xam ne ñoom nga nekkal li gën fës nag ci xibaar yi mooy li nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne lëmbee na réew mi ñu daal ci daal di ciy li nga xam ne moom mooy yeneen information yoo xam ne xew na fi ñu daal koy doore ak li nga xam ni moom mooy point bu coronavirus nga xam ne bis bu ne dinañ ko amal fële nga xam ne moom mooy màkkaan bu joriñ bu yor wàllum wérgu yaram annoncé nañ nag tey ni 30 nouveaux cas daal dinañu yokku ci li nga xam ne moom mooy lim bi amoon coronavirus ci biir 30 nouveaux cas yooyu nag 26 ci ñoom di ay cas contact maanaam dañoo daal jëflante ak ñoo xam ne dañoo am coronavirus ñu daal di leen koy wàll ñeent ci ñoom nag di ay cas communautaire li nga xam ne moom mooy jàngoro fële nga xam ne moom mooy Touba nag ñi ñu xamal ne foofu la euh, cas communautaire yi nekk tey 4 communautaire yooyu nga xam ni moom lañ annoncé ñi euh, ki nga xam ne moom mooy docteur loolu nag di waral ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais di gën tiit ndax bis bu nekk dañuy gis ni li nga xam ne moom mooy cas communautaire yi dafay gën di am te xam nañ ne loolu moom moo gën a ci xeex bi nga xam ne moom la xeex coronavirus bi fii ci Sénégal nag commencé di tiital ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi parce que en moins de trois jours trois personnes daal dinañ ciy génn àdduna ci li nga xam ne moom mooy feebar bii di coronavirus ki nga xam ni la bu amoon moom mooy dafa infecté woon ci feebar bi moom la daal di jëflanteel kooku daal di ko koy wàll waaye li nga xam ne moom moo gën a doy waat ci benn mbir nag ñi ngi ñuy ni kooku li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel de santé bi xamuñ xamuñu woon ne dafa am coronavirus parce que demul woon fa li nga xam ne moom mooy hôpital maanaam kenn mettre woon ko en quarantaine moom bi situation bi aggravé woo ci lay daal dem fa li nga xam ne moom mooy hôpital démb ci ay booru 17 heures ba tey lu ñeel feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus fële ci Madagascar dafa mel ni dañu faa trouver benn remède benn remède boo xam ne dafay faj li nga xam ne moom mooy coronavirus loolu la li nga xam ne ki nga xam ne lenn da koy daal di faj ci li nga xam ne moom mooy coronavirus daal di nay wax ne ñaari nit ñaari patient daal di nañ koy naan ñoom daal di wér ci li nga xam ne moom mooy feebar bii di coronavirus moom nag mi ngi assuré nit ñi ne moom ci boppam dina naan li nga xam ne moom mooy remède boobu remède bi nag mi ngi nekk à base de plante plante yoo plante yoo xam ne ay plante médicinale la maanaam ay garab yoo xam ne ay garab naturel la loolu nekk benn information boo xam ne ñi ngi ko jot fële moom mooy Madagascar nga xam ne seen président bi si boppam moom moo daal di annoncé loolu ne garab boobu dafay faj li nga xam ni fële ca Médina nag gis ngeen ne ay jeunes ñoom ñoo fa nekkoon fan yëpp di génn ci heure yi nga xam ni moom mooy heure couvre feu maanaam heure yi nga xam ni moom mooy police ngir teg leen ay daan loolu di wane ni nag li nga xam ni moom mooy couvre feu bi ak bépp loi boo xam ne teg nañ ko ngir xeex coronavirus bi képp ku ko daal di enfreindre yoon dafay daal di dal sa kaw ki nga xam ne nag moom mooy professeur Eva Marie Coll nga xam ni moom la jiite muy collectif en mouvement pour l'équité les valeurs et l'action moom nag daal dinañuy leeral ni kooku nga xam ne moom mooy wax ci audio yooyu nekkul ki nga xam ne moom mooy Eva Marie Coll te moom mosul joxe benn directive bu jëm ci li nga xam ne moom mooy port du masque wala yu demee noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa collectif boobu weddi nañ ba set wecc li nga xam ni ñu ngi koy circuler ci fi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi rawatina fi nga xam ne moom mooy whatsapp ñuy woo nit ñi ci li nga xam ni moom mooy respect strict boo xam ne moom mooy mesure yi nga xam ne ministère de la santé moom leen koy jox ngir daal di mucc ci li nga xam ne moom mooy coronavirus bi ko li nga xam ne nag moom mooy cité mixa daal di nañ fay teg loxo six personnes six personnes yoo xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police bu Parcelles ñoom ñoo ñoom ñoo leen daal di jàpp ki leen daal di boole nag kenn

information boo xam ne waa SeneNews ñoom ñoo ko daal di joxe ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi ñi nga xam ne ñoom ñooy population yi ñi nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre ñu gën a yokk li nga xam ni moom mooy vigilance bi ci biir quartier yi parce que am na quartier yoo xam ni ba léegi respecté wuñu li nga xam ni moom mooy couvre-feu bi ginnaaw ay critiques yu bëri yoo xam ni jot na ko ci émission bi nga xam doon na ko def li nga xam ni moom mooy TFM ki nga xam ni moom mooy Youssou Ndour dafa daal di émission boobu nga xam ni moom mooy fii tey émission boobu nga xam ni chaque guddi da ko doon def di ko def aussi en live ci télé bi ak ci li ak différents comptes yi nga xam ne am na ko ci réseaux sociaux yi di bëggal ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fanam wettali leen ci heure couvre bi daf koy daal di arrêté waaye nag moom daal dinay préciser ni moom li nga xam ne moom mooy critique yi taxul mu daal di arrêté li nga xam ne moom mooy émission bi mais weeru koor bi nga xam ne ci lañ jëm moo tax mu daal di li nga xam ne moom mooy émission bi nga xam ne doon na ko def fa li nga xam ne moom mooy TFM di fii tey ki nga xam ne nag moom mooy Erika nekk fi nekkoon fi mannequin fi nga xam ne moom mooy Sénégal nekkoon nag sax li nga xam ne moom mooy Miss Sénégal moom nag ñi ngi ñuy xamal ni daal dinay remarié wu moom daal dinay remarié wu ki nga xam ne moom moo nekkoon jëkkëram ginnaaw bi ñu tàkkalikoo ay at ci ginnaaw ba ñëpp foogoon ne ñoom ñaar dañoo tàkkalikoo

voilà mbokk internet yi loolu la leen indi loon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci information yi fi jot a xew ñu leen di wax comme ngeen continuer di topp limametti point com ngir am information a ngeen mën a xibaar yi foo leen mënti tollu ñu leen di diggal ngeen di topp mesures yi nga xam ne moom la leen ministère de la santé di diggal ngir mucc ci jàngoro ji nga xam ne moom mooy coronavirus di ñaan yàlla yàlla jëlee fi ñu leen di jox rendez-vous yoon ci biir limametti point